kon mbokk yi incha allah ñu ngi war a jël tey ay fukk ak benn ci suuratu Ibrahim ay onze ci suuratu Ibrahim qaalat lahum rusuluhum إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين kon mbokk yi alhamdulillah ñu ngi di yeesal santar suñu boroom mi ñu wërsëgal ñu daje ci biir weeru koor daje ci biir néegam fas yéene jàng ab téeréem ñu ngi ñaan suñu boroom yàlla yal nañu nangul kon insha allah ñu ngi nekk ci aya onze ci surat ibrahim qaalat lahum rusuluhum ñu ngi noonu Cheikh Ali
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالت لهم رسلهم إنكم إلا بشر مثلكم ولكن الله ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون فما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آتيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فألقى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم suñu boroom subhanahu wa ta'ala mu ne qaalat lahum rusuluhum wax na ñeel leen ay yéeféer ya wax na leen seen yonent ya in nahnu illa basharun mislukum ñun duñu dara lu dul ay nit rekk comme yéen walakin allaha yamunnu ala man yashaau min ibaadi waaye yàlla day mooy baaxe ci kaw ku ko neex ci ay jaamam wa ma kaana lana an natiyakum bi sultaanin nekkul di ñu ñeel ñu leen di indil benn lay illa bi iznillah lu dul ci ndigal yàlla wala wa ala allahi falyatawakkali almuminuun ca ci yàlla rek nga la waay na wakkirlu sukkandiku ñi nga xam ne dañoo gëm wa ma lana alla natawakkala ala allah yonent yi ne lan moo ñu ñeel ba duñu wékku ci yàlla wa qad hadaana subulana ca yàlla moomu jubal nañu suñu yoon wala nasbiranna ala ma azaytumuna ñun day daañ muñ ci li nga xam ne yéen a ngi ñu koy lore wa ala allahi falyatawakkalil mutawakkiluun ca ci yàlla rek nga la waay na sukkandiku képp koo xam ne da ngay sukkandiku wa qaala alladina kafaru li rusulihim noonu la waxe woon yéeféer ya ñeel seeni yonent la nuxrijannakum min ardina daañu leen génne sunu suuf si aw la taxudunna fi millatina wala da ngeen dellu ci sunu diine ji muy sunu yoon wi fa awha ilayhim rabbuhum noonu la wax yoo jëme ci ñoom jëme ci ñoom seen boroom la nuhlikanna zalimin mu ne leen danaa alak tonkat yi wala nuskinannakum al arda min baadihim danaa leen dëkkal suuf ci seen gannaaw zalika liman xaafa maqaami loolu day dana ñeel ci képp ko ragal sama taxawaay wa xaafa waid daa di ragal la nga xam ne mooy samay tëkku mi ngi noonu mbokk suñu boroom day tënk fii ñu tàmbale woon ko démb benn dagg sante buy dox diggante mboolem yonent yi mu yónni ca yonent yooyu yépp seen diine benn la ak mboolem kéeféer yi ñu dajeel ci kéeféer yépp benn diine la mbokk kaw suuf ñaari diine fi am diiney dëgg muy diiney lislaam ak diiney neen muy diiney seytaan donte ne nag am na téeméeri tur ak juróom fukk ak noo ko mën a tuddee suñu borom mu ne ci liñ jàngoon démb yéeféer yi dañoo wax yonent yi yéen ñun nit rek ngeen comme ñun naka lañuy nangoo ne yàlla tànn na leen di wax ak yéen ca dañoo war a bàyyi suñu xalaat yépp topp leen loolu suñu borom di ko tontu tey ne yonent yi day dañoo saxal loolu axakay ñun ay nit lañu comme yéen loolu mbokk da ngay gis ne ak neexoon jullit ñépp daldi ci dëkk dëppoo ci loolu waaye mbokk seytaan mi dugaloon ci xolu yéeféer yi ñii bu leen leen topp ay nit rek lañu comme yéen dañoo am xalaat ngeen am xalaat nag ngeen leen di toppee seytaane boobu it moo dugal ci bopp ñëgëm yeneen ci waaye ñii màggal leen leen waay ñii ca lañu màggalee ci seen xol ba ñu jël leen def leen ay yàlla comme nañ ko defee Uzayru suñ borom nee na yahudi màggal nañ Uzayru ba ne yàlla la chrétiens yi màggal nañ Isa ibn Maryam ba ne yàlla la boo ñëwee ci diine lislaam it léeg-léeg nga dégg màggal yu ñuy màggal suñu yenente sallallahu alayhi wa sallam yoo xam ne dañuy dem ba yóbbu ko ci yàlla loolu bay déglu way yi ñuy way heureusement sax way yi lu ci bëri arab lañ koy wax waaye boo ko doon tekki exactement ci wolof la ca bari mbokk da ngay gis ne ay kéeféer la kon lan mooy siratul mustaqim mooy ñu gëm ne yonent boobu na doon depuis yàlla yónni Nuux ba suñ jamono tey ay nit lañu waaw léegi ay nit lañu ndax kon ñun ñoom nit lañu ñun nit lañu waruñu bàyyi suñuy xalaat di leen topp suñu borom nag dolli ci ne déedéet waaye yàlla mooy ah xéewal di laayi biir ci ku ko neex ci ay jaamam yàllaay tànn jaam bu ko neex ni eey yeneen jaam yépp déggal leen kii topp leen kii ku ko déggal àddina la jëm ku ko moy safara la jëm waaye boo gisee tey jii dëkk yi nga xam ne masalan dañuy dund lu mel ne laïcité comme Sénégal démocratie li ñu jàpp moo di ne déedéet réew mi ñi fi nekk seeni xalaat la ñu war a jëfandikoo pour doxal ci réew mi mi ngi noonu loolu nga xam ne nii mbokk tubaab bi ñu koy indil waaye suñu borom mi ñu bind ca moom réew mi moom ñu daf ñoo tànnal ay gidd jàng nañ ko ci dar su bari ci leen bi li kulli qawmin haat gidd boobu moo war a indi programme bu ba woo ci yàlla doomu aadama yépp topp ko yamunnu ala man yasha min ibadi ñooñu mu doon baaxee nag di leen def ay yonent gëm leen ni ki ci mujjoon mooy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam kooku moo ci mujjoon donte ne nee na balaa àdduna tukki dana am fanweeri nit salaasuna kazaboon fanweeri nit yu ñëw ku nekk jort na yonenti yàlla la waaye wala nabiya ba'di yonenti amul sama gannaaw noonu it bu dee loolu da ngay wax ak waa Mauritanie waa Espagne ak waa Amérique loolu rek doy na bay wax ak waa Sénégal it da nga ci dolli ne mooy dernier yonenti de ca it judduwaatul nekkaat yonenti deuxième fois loolu da nga koy dolli moom bay wax ak waa Sénégal gis ngeen suñu borom yàlla subhanahu wa taala ne yonenti yi ne leen lay yi ngeen wax ñun nañ ko def ñu ngi noonu ñun amuñu kàttan def ko lu dul ci ndigalu yàlla ca it mbokk yonent la muy jëkk a saxal mooy laa xawla wala quwwata illa billah amuñu pexe amuñu pouvoir yàlla leen yónni li leen yàlla yónni la ñuy wax li leen yàlla def loolu la ñuy def jeex na illa bi iznillah borom bi nag ne ngalawaay nañu xam ne ci yàlla rek la ñu gëm war a wékku na am ndax lu waral loolu mooy menace yi nga xam ne dañ leen koy menacé yonent yi ne leen ñun nu ñuy def ba du ñu wékku ci yàlla te yàlla jubal nañu la nga xam ne mooy suñu yoon ci na am mbokk ab julit bi yàlla gindi day xam ni mooy ki doyloo boroomam maadaama mi ngi sax ci li neex yàlla yàlla subhanahu wa taala du ko seetaan am la yonent boo xoon Abu Bakar la tahzan inna allaha maana yàlla jubal nañu suñu yoon léegi nag lor yi ngeen ñuy lor daañ ko muñ muñ gu rafet daañ ko muñ muñ gu rafet loolu it mbokk mu lay jàngal lan ma yonent ci yàlla yi gën ci middaafan yàlla yi ñi ngi leen doon lor ay lor mi ngi noonu yonent bi alei salaatu wasalaam naafiq yi dañ daan ñëw wax ko wax joo xam ne maara day taali sahaaba yi bot ci seeni jaasi mu ne leen déedéet Muusa loroon nañ ko lu ëpp lii te da ko muñoon ba suñu borom di wax naan yaa ayyuha allazina amanu laa takunu ka allazina azaw Muusa mu leen mel nañu loroon Muusa yonent bi alayhi salaam daana wax ne am na yonent yi ma jiitu woon fañ taxaw di wax xeer yi dafa daal di jóoru seen kaw seen bopp yeey car-cari deret ñu naan ay yàlla jéggal leen dañoo xamul ay yàlla jéggal leen dañoo xamul gis ngeen kon daañ muñ natt yi ngeen ñuy teg ca it ci yàlla kuy wékku ci yàlla rek la war a wékku nga la wa yow jullit li xew ci réew mi dénk naa la sëñ diw yàlla na la sëñ diw aar boo jàqee tarxiis na yaa cheikh diw na am génération yi ñuy dund day ñoo koy dund ay nga la waay bu leen ci bokk jullit ci yàlla ngay wékku rasul sallallahu alayhi wa sallam nee na kiy génn këram ne bismillah tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah nee na kooku seytaan yépp dañ koy daw lu tax moom mi ngi génn ci turu yàlla ca yëpp ci ne ci yàlla rek lay wékku suñu borom ne yonent yi bi ñu waxee lii yéeféer yi yu tombee woon ak Nuux Huud Saalix ba baa ñu tombee suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam lu ñu leen wax da ngeen daañ leen génne suñu dëkk bii du ngeen fi nekk di ŋàññi suñu yàlla yi daañ leen fi génne wala boog ngeen delluwaat dundaat diine bi ñuy dund gis ngeen gaa yi loolu gis nañu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nan la waa màkk mu ji décidé te réunion ba ñu doon réunion suñu borom mu ne li li yuxrijoo ko li yusbitoo ko aw aw yuxrijoo ko aw yaqtuloo ko réunion nañ ne waaw kii moom ay mbiram nuñ koy def duñ ko bàyyi mukk mu nekk fii nag di ŋàññi suñu yàlla yi di ñu dof loo am ñu ne nañ ko tëj ci néeg bu mu fa génneti am ñu ne nañ ko génn dëkk bi nañ ko génn dëkk bi conclusion réunion ba mooy nañ ko rey benn yoon noppalu kon mboolem yi yonent menacé nañ leen ne da ngeen di dellu ci suñ diine wala ngeen génn dëkk bi loolu it mbokk jullit ak a bari tey ay nit ñoo xam ne diine ba ñuy dund dañ leen wax diine moom kenn du ko dund fii dàq leen ca seen service ngir seen diine ak a bari mooy service bi kenn du fi julli dàq leen ci seeni sëy ngiree ne dañ ne kër gi kenn du fi muuroo dàq leen ci ay dëkk yu bari ngiree diine rek moo tax ñu xeex leen dàq leen comme ni ngeen ko gisee un peu partout dans le monde waaye ala kulli xaal mbokk jullit lii menace la buñ joxoon mboolem yonent suñu borom subhanahu wa taala nag ne moom dafa wóoyu woon ay yonentam ne leen tooñkat yi lu mu yàgg-yàgg dinaa leen mbugal dinaa leen alak te it yéen lay bàyyi ngeen des seen gannaaw lii dana ñeel képp koo xam ni ragal na bis bi muy taxaw ci kanamu boroomam ragal na tëkku yi nga xam ni moom la yàlla di tëkkoo te it mbokk doomu aadama bi da ngay gëm ne mi ngi ñëw ci sa kanam loo xam ne benn sikk amu ca bis boo deeyee dana soob borom bi mu dekkalaat la boo dekkee da nga fekk ñaari malaaka ñi ngi taxaw di la xaar daañ la escorté ba indi la sa kanamu boroom sa borom yàlla atte la sa téere yépp teew boo fa jógee yaa ngi jëm aljanna wala yaa ngi jëm safara suñu borom moom lay wax naan faman faman xaafa maqaama rabbihi mi ngi noonu képp koo xam ne ragal na bis muy taxaw ci kanamu boroomam fal yaamal amalan saaliha wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada ki ragal ca xam ne bis mi ngi ñëw ñu taxawal ko ci kanamu boroomam ci benn examen boo xam ne nii réussite mooy aljanna échec mooy safara mu ne ngal la waay nay jëf lu baax lan mooy jëf bu baax mooy jëf bu méngoog sunna te it bu mu bokkaale ak boroomam jalla wa ala dara loolu mbokk mi ngi noonu Cheikh Ali
واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد
barakallahu fiikum suñu borom mu ni wastaftaxu noonu lañu sakkoo yàlla ubbee leen ay yàlla atte leen wa xaaba kullu jabbaarin anit noonu la perte bépp ku mbëru daa di wane dëgër bopp ci aayay boroomam min waraihi jahannam ca gannaawam day ay mooy bu deeyee jahannam moo koy xaar wa yusqa min ma'in sadid ci des na ko nandal ci ndox moo xam ne ndoxi dëtt lay doon yatajarra'uhu dana nekk di ko góox ay góox wala yakaadu yusiixuhu ca du ma aw xaw sax man kattan di ko mën a wanaasu ay di ko mën a wann wa yatiihi lmawtu min kulli makaan dee dana ko jógal dana ko jóge ci bépp place wa ma huwa bi mayit ca du mën a nekk aji dee mukk wa min waraihi azabun galiz ca ca gannaawam day mbugal mu dëgër mu tar dana ca nekk masalu lazina kafaru bi rabbihim misaalu ñi nga xam ne dañoo weddi seen boroom amaaluhum karamaat seen jëf day mi ngi mel ne ab dóom mooy cendre istadat bihi riix dóom boo xam ne tar na ci upp la nga xam ne mooy ngelaw ga fi yawmin aasif ci bis boo xam ne bisu tempête la mooy bisu ngelaw bu tar laa yaqdiruuna mimma kasabu ala shay'in ba duñu mën a am kàttan ca lañ doon fàggu ci dara zalika huwa dalaalu lbaid loolu day mooy réer ga nga xam ne gu sori la mi ngi noonu mbokk jullit gis nañ ne yonent yi bi ñu sonnee woo nañu yàlla wallu leen rabbana aftax baynana wa bayna qawmina bilxaq mi ngi noonu ay yàlla atteel suñu diggante ak suñu xeet loolu suñu borom ne automatiquement ci la alko ñi mbëru woon ci kaw jaami yàlla yi anit wala dëgër bopp ci kaw aayee borom bi suñu borom mu ne innahu kaana li ayatina anida mooy mëru nañ ci kaw jaami yàlla yi aayey borom bi ndigalam ñu dëgër bopp woon ko gannaaw noonu la ñu perte ñu ci jiitu mooy xawma nuux gannaaw huut saalix luut ila axiri ila axiri ña yàlla mujj mbugal mooy firawna ak i gaayam ñu ngi noonu borom bi nag nee na alkaange googu yéefér di alku ci kaw suuf lan mooy nekk ca gannaaw loolu ca gannaaw loolu mooy jahannam moo koy xaar jahannam mbokk moom mooy safara suñu borom mu ne yowma alqiyaama wa jia yowma idin bi jahannam suñu yonente alayhi salaam ne bu ñuy indi jahannama yowma alqiyaama nee na suñu borom dana ko wutal juróom-ñaar fukki junni ci jàppukaay ay chaîne soixante-dix mille te nee na chaîne bu nekk soixante-dix mille malaaka ñoo ciy jàpp bés ngeen dem géej gis ni ñuy génnee gaal yi ñu nga noonu ca bu boobaa dañ koy diri di ko indi muy bëmb di tëb di dal ngir yàkkamti jël noonu yàlla yi loolu ça fait quatre milliards neuf cent millions de malaaka loolu mbokk mooy jahannam borom bi nee na moo koy xaar su fa duggee ñi ngi koy nandal ndoxoo xam ne ndoxu dëtt la te mooy dëtt ak rangoon yiy jóge ci ñoom moom lañ leen di nandal ca ndox mi day mel ne beteex bu ñu réyal bu ñu ruyal beteex bu ñu ruyal wala or bu ñu ruyal ala kulli xaal métal bu ñu ruyal wa in yastaxiisu yuxaasu bi maa in kal muhlu muhlu mooy bépp métal bu ñu ruyal ca mbokk tàngaay foofu la yem mu ngi noonu nee na loolu lañ leen jox ñuy naan looloo tax borom bi subhanahu wa taala nee na ay góox góox la koy def malaaku yi tiim ko ak bolde yi mënul ñàkk bañ a naan di góox ay góox yoo xam ni du ko mën a wan na day dem xotti put gi xotti butit yi tuuru ca suuf fa taqatta'at am'aa'uhum comme na ko yàlla di waxe suratul hajj noonu lay def di naan muy xotti di xotti di tuuru malaaka yi di dóor di di muy xotteeku mbokk loolu di lu yéeme suñu borom dolli ci nag ne dee dana ko dikkal fu mu mën a nekk mbokk ki yàlla yi mbugal ci safara awalan xamal ni yàlla dana ko pompe ba mu jege ba mu ëpp cent kilomètres yeneen ci bàyyi salaam nee na benn bëñu yéeféer ci biir safara dana toll ne jabalu uhud noonu la ko yàlla def léegi nag dee di ko jóge fu nekk jaan yi xeer yi bolde yi jiit yaag lépp loo xam ne ni rek luy mbugal doomu aadama la day daj ci moom min kulli makkaan fu nekk rek la ko lu mën a rey nit di dikke waaye mbir bi mooy suñu borom mu ne du dee ndax mbokk dee yàlla ko bind comme ni mu bind dund xalaqal mawtu wal xayaat gis nga bu yàlla nangul nga dee dara mënu laa rey dara mënu laa rey doomu aadama yàlla moo koy rey mu doog a dee looloo tax yowmal qiyaama bu waa àjjana duggee àjjana ba ñëpp dugg waa safara dugg ba ñëpp dugg suñu borom dana yëkk ci dee yeneen ci bàyyi sam nee na melo da koy def melokaan mel ni benn kuy nee na mu ne waa àjjana ndax xam ngeen kii ñu ne kooku mooy dee bi ñu rey mu ne leen waa safara ndax xam ngeen kii ñu ne kooku mooy dee bu ñu rey suñu borom ne malaaka yi rey leen dee ñu rey dee mi doon reyaate mu ne nag waa aljana alxuluud sax leen ba faw dee amatul waa safara dee amatul dee mbokk yàlla moo koy def ku yàlla namul nga dee doo dee loolu it jullit da ci dalal xelam yonente bi alei salaam nettali nañu ci qissa asxaabul buruj mi ngi noonu benn jeune boo xamee ni nii ba mu difiyee buur ba mu nekkaloon ba buur bi ne da koy rey ca la ko yàlla jàppale buur bi lu ne def na ko pour rey ko mënuñu ci dara ponkal yi gën a rëy indi nañ leen tiim ak jaasi till day dal ci bopp bi rek mel ne ku donc buñ ko laalalee gis ngeen gaa yi yóbbu ko biir géej yóbbu fu lañ yóbbu ko fa à la fin mu ne buur soo ma bëggee rey xam nga nooy def dajaleel dëkk bi yépp nga jël benn fitt rek ci sama fitt yi nga daal di ne bismi rabbil gulaam maa ngi koy tiire ci turu buuru buuru xale bi te fekk buur boobu daa moom jàpp na moom mooy yàlla bi ñu war a jaamu loolu mi ngi amee woon fii ci Yemen gis nañu buur bi pour essayer def ko de woo dëkk bi yépp ñëw mu jël flèche bi bi mu nee bismi rabbil gulaam rek dóor mu dal ca fa nga xam ne mooy ca kër côté kaw kër nopp ga xale bi daadu daanu dee waaye bi mu daanoo waa dëkk bi yépp ne aman naa bi rabbil gulaam ñun gëm nañu yàllay xale bi ndax preuve leer nañ ca la boor bi ne ah bon gas lu ay fossé muy wax dóor daa di dajale ñi ne gëm nañ ko ñëpp góor ak jigéen mag a ndaw ba max di leen lakk moom la borom bi dox na wa samaa'i zaatil buruuj wal yawmil maw'uud wa shaahidin mashhuud qutila ashaabul uxduud mooy alkaanga ñeel nañu defan fossé yooyu ci sànd mooy loolu loolu mbokk ci gàttal kon suñu borom yàlla mooy rey loolu tax waa ajjana du ñu dee ba faw waa safara du ñu dee ba faw wa ma huwa bi mayitin suñu borom nag ne gannaaw lii mu nekkee ci mbugal yu tar yi gannaaw loolu it mbugal mu gën a tar mi ngi xaar loolu ca mbokk jahannam benn partie la ci safara boo xam ne day lakkaate gannaaw ba dañ leen fa génne yóbbu leen ci xamimin aan yatuufuuna baynaha wa bayna xamimin aan ndox moo xamee ne nii fa xalaatu doomu aadama yem ci tàngaay moom fa la commencé di dem ñu dugal leen foofu bu ñu leen fa jógee yóbbu leen ci amoniac bu ñu wax yaxmuum ila axi noonu la leen malaaka yi di jëlee mbugal bu gën a tar ñu yóbbu ci beneen façon bu gën a metti ñu indi beneen loolu moo tax suñu borom ne ni muy mbugale kenn du ñu mbugale jàll wa ala borom bi nag di misaal yow borom xel tey yéeséer yi nga xam ci kaw suuf am na ci ñu bokk médecins sans frontières du ñu yendal du ñu fanaanal ci service doomu aadama am na ñu jël des milliards di investir ci ay hôpitaux ci ay nangam ci ay nangam waaye mbokk su dee boole na ca gëmul diine yi islam jëfam yépp égal zéro ca yàlla moo tax suñu borom yàlla ni ñi nga xam ne dañoo nekk yéeféer seen misaal mi ngi mel ne rek ko amoon jal ab jal ci dóom dóom mooy matt bi tàkk ba def dóom muy centre mu am ci ab jal léegi nag benn ngelaw jóge fële ci bis boo xam ne bisu ngelaw bu tar gaa yi ngelaw day buddi ay ay ay ay garab ngelaw day daaneel ay immeuble kon ab dóom nan la nan la ko ngelaw ni muy def nan la ko ngelaw di def nee na bu ngelaw bi ñëwee da koy raafale ba mu jeex tàkk loolu mooy misaalu képp koo xam ne da nga nekk fii di def lu baax te boole woo ko ngëm yàlla am naa ki nekkoon fii di def gëmul yàlla ba pare di def lu bon moom kooku moom darul ñuy wax waaye mbokk yéeféer buy def lu baax sunu maam yi léeg-léeg ñi ci daan nax rek ay yenn chrétiens yi ñu dëkkal ak yooyu ñu ne ab tab du lakk yéeféer su dee ne dafa doon koo xam ne ku doon def lu baax yàlla da koy wutal gaal dugal ko biir safara léegi nag moom du lakk loolu su ñuy wax rek la de yonent bi alayhi salaatu wassalaam su dee ay Aysa laaj ne ko Abdullah ibn Jadaan nekkoon ci kilifay màkk yi yàlla may ko alal mu nekk dalal bépp gan bu ñëw màkk moo koy dalal may ko mu lekk may ko lépp su ne ay chinois yu muy yàlla yónni ndax moom loolu dana ko jëriñ ci àllaaxira yonent bi ne ko déedéet ndax musul wax benn yoon yàlla yërëm ma bisu penc gëmu ko woon maadaama gëmu ko woon mboolem li mu doon def dafay nekk mi ngi noonu zéro ci yàlla moo tax suñu borom ne lii day muy réer gu mag mi ngi noonu chafat yi
ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز فبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم
barakallahu fikum suñu borom mu ne alam tara moo ndax yow gisuloo an allaha xalaqa alsamawati wal arda bilxaq ndax gisuloo ni yàlla day moo bind asamaan yeeg suuf ci dëgg in yasha yuzhibkum su ko neexee mu yóbbu leen wa yaati bi xalqin jadid mu indi bindin beneen bindaafon gu bees beneen bind gu bees wa ma dalika ala allahi bi aziz ca loolu day nekkul ci yàlla loo xam ne lu koy tëla wa barazu lillahi jamia su boobaa dañ leen fang dajale leen ñel yàlla mboole seen fa qaala duafaau lilladina stakbaru su ko defee dana wax ñenee woon doole ñeel ña nga xam ne dañu rëy rëylu woon inna kunna lakum tabaa ay waay ñun de yéen lañ toppoon fa hal antum mughnuna anna min azabillahi min shay'in ndax yéen man ngeen ñoo doon ñu ñuy fegal ci mbugalu yàlla mii ci lenn lu mën a doon qaalu law hadaana allahu la hadaynaakum ñu ne ñun de bu ñu yàlla jubaloon kon daañ leen jubal sawaun alayna ajzina am sabarna dana yemoo ci ñun képp ñu daal di lot ñékki wala ñu doon ñoo xam ne dañuy muñ maa lana min maxiis du ñu ñeel benn muccuwaay mi ngi noonu mbokk kon suñu borom mu ne moo bind asamaan yi ak suuf ci dëgg ca loolu it yéeféer yi dañ koo nangu woon boo leen laajee ku ku bind asamaan yi ak suuf ñu ne yàlla mu ne nag mais kon yàlla moomu su ko neexee mu jël leen yéen ñépp yóbbu yóbbu leen su ko neexee it mu indi yeneen mbindaa fon mi ngi noonu ca loolu day nekkul loo xam ne lu tëy yàlla la mbokk yàlla ci àdduna dana jël ñi fi nekk yóbbu indi ñeneen ñu leen wóotu te yow doomu aadama boo dundee ba gis say njaboot nga dund ba gis say sët xamal ne ñii dañoo ñëw pour wuutu la fi mi ngi noonu la la koy wan mooy xoolal ana sa baay ana sa maam lu bari ci nit ñi day fekk seeni baay ak seeni maam dem nañu kon yàlla mooy def loolu naka noonu itamit allaaxira it yàlla mooy bindaat doomu aad aadama yi génne leen nam leen bind binde woon ca loolu day tëwul yàlla jalla wa ala suñ borom nee na daañ dekkal jaami yowmal qiyaama muy dekki goo xam ne gu yéeme la ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na lu yàlla mës a bind ci kaw suuf yàlla dana ko génne keroog loolu muy wane ne nit ak jinneeg bàyyumaag jaan ak ñay ak lu yàlla mës a bind dina ko génne moo tax mbir ma doon loo xam ne lu yéeme lay doon suñu borom mu ne shay'un azim lu yéeme lay doon su ko defee nag suñu borom yàlla subhanahu wa taala su dugalee yéeféeri biir safara ña nga xam ne ay altoppe lañu woon ñoom lañu naxoon di leen laaj seen alal di leen bayloo tool ya di leen noggatu ci turu diine daañ dem ca kilifa ya nga xam ne ñoo leen yóbbee loolu naan leen ay yéen ñun de ci àdduna yéen rek lañ toppoon yéen lañ yaakaaroon waaw mbugalu yàlla mi taw ndeyjoor càmmoñ di ñu jóge fu nekk ndax amul lenn lu ngeen ñu ci mën a fegal bu ngeen ñu fi mënta génn it ndax amul lenn lu ngeen ci mën a woyefal lan la gaa yi tontu ñun dey bu doon yàlla def ñoo jubal kon ñu nit dañ leen jubal bu ñu yàlla jubaloon kon dañ leen jubal waaw léegi nag yemoo na ci ñun ñu doon aji lot yemoo na ci ñu ñu doon aji muñ loolu loolu mooy mi ngi noonu mbokkit loolu muy wane ne doomu aadama bi nga xamee ne nii yàlla da ko jubal te ko ala siratul mustaqim buñ dajale woon àdduna ak li ci biiram du tax mukk muy woo nit ñi ci yoonu réer abadan dara jarulu ko loolu kon képp koo gis muy woote ci réer daa fekk moom ci boppam dafa réer dooga mën a woote ci réer moo tax mu ne yàlla bu ñu jubaloon kon ñu jub léegi nag jàmbat bi moom jaru ko suñu muñee duñ fi génn suñu lottee duñu fi génn loolu mbokk mooy règle waa safara amma bu dee àdduna amul benn jaam bu yàlla teg natt nattu ga mu muñ ko muñ ko rafet lu dul suñu borom dana ko dabantal ci yërmandeem loolu kon mooy dàggasante bi am diggante ñi réer ak ñañu ak ñañ doon réeral ñi ngi noonu
وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعد الوعد الحق إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام
barakallahu fikum suñu borom mu ne wa qaala sheytaanu lamma qudiya al amr noonu la sheytaan a waxee bañ àttee mbir yépp inna allaha waadakum waada al xaq yàlla day digoon na leen digub dëgg ba wa waadtukum manit ma dig leen fa axlaftukum man nag wuute naa ak dig ci yéen wa ma kaana lii alaykum min sultaan te ñeelu moo ci seen kaw benn lay amu woon benn lay ci seen kaw illa an daawtukum fastajabtumu lii lu dul ne dama woote woon rek ngeen ñëw wuy si ma fala taluumuuni wa luumu anfusakum bu leen ma yedd tey yedd leen seeni bakkan maa ana bi musrixikum tey jii du man maay wal doon koo xam ne ku leen di man di wallu wa ma antum bi musrixi yéen it munoon leen nekk aji wallu ñeel ma di ma génne ci mbugal inni kafartu bi ma ashartumuni min qablu man de weddi naa ci lépp loo xam ne nii da ngeen koo bokkaale woon ak man ci lu jiitu inna zalimina lahum azabun alim tooñkat yi de dana leen ñeel mbugal moo xam ne mu tar lay doon wa udxila allazina amanu wa amilu salihat des na la du des na dugalit ña nga xam ne dañoo gëm ci gë ci jëf-jëf yu baax ya jannatin tajri min tahtiha al anhar ajjana yoo xam ne dana daw ci suufam ay dex xaalidina fiha bi idni rabbihim ñu sax fa ba faw ci seen ndigalu boroom taxiyatuhum fiha salaam seen nuyonte ci àjjana joojee day mooy salaam ñu ngi noonu di jàmm mbokk suñu borom mi ngi ñuy wax benn étape bu rëy ci biir safara seytaane bi waa safara yépp saxee biir safara ba yàlla àtte mbir yi ñe waa àjjana dem nañu ñi yeyoo woon jaar safara jaar fa génn nañu dem ba mu des waa safara neen ci seen biir ca lañ gis dàggasante boobu ñi néew doole di ŋàññi ñañ toppoon ñoo ñen ŋàññi ñañ toppoon ba waa mu yegg si nag ci seen kilifa gi ñoom ñëpp muy seytaan nga xam ne ku réer moo la réeral ñépp buñ bëggee dem nag bëgg koo supp mbir mi mu ne leen nag hey man kat yàlla da leen a diggoon ay digg yu dëggu mbokk ana diggi yàlla ya mi ngi nii ci téereem bu tedd bi ñuy jàng yàlla wax ñu yoon ba nga xam ne fa la ñuy jaar ba texe yàlla diggoon na leen digub dëgg man ma ñëw dig leen samay dig loolee kon xam leen ne man nag war naa leen tey ca mbokk bépp dig bu safaanoog digub yàlla ngal la waay bu leen ko gëm ak digg yee bari suñ jamonoy tey boo toogee ci kanamu rajo wala télévision di xool daje yi nga xam ne dañ koy wax ci turu islam ña fa daje digg yi ñu leen di digg ajjana yu tooy xépp ci la yomb lool mi nga noonu mbokk yooyu la suñu borom ne seytaane dana ne yàlla day digoon na leen digub dëgg manit ma dig leen tey man war naa leen ca nag tamit ooma woon kattanu jóg def loo leen lu bon dama doon woote rek yéen ngeen ñëwuy si ma ca mbokk tey jii buñ ñëw orchestre tel tey mooy tëgg grand théâtre entrée bi vingt mille francs la waa ji seytaane du ñëw yennu la yóbbu la ne la da ngay passe par force dugg par force moom koy woote na rek léegi nag yow yaay dem demal sa bopp ba nit day jaay fee baarub sàngara seytaane du la yenu mukk jël butéelu sàngara di la ko roofal moom daal woote na rek yéen yéenay dem wuy ci léegi kon bu leen ma yedd omo woon ci yéen benn kattan damaa woote woon rek ngeen wuy si ma ngi noonu mbokk wooteb seytaane mooy bépp woote bu safaanoog déggulu yàlla wooteb seytaane la musique yaag shirk yaag bidaa yaag bépp woote boo xamee ne nii safaanoo na ak na yonent bi ak i saxaabaam doon woote xamal ne wooteb seytaane la mu ne nag tey bu leen ma yedd kon kay yedd leen seen bakkan yi ngeen mënul woon a téye ba wuy si sa woote leen ma yedd yedd leen seen bopp te loolu it mbokk julit doomu aadama buñ la laajee kan mooy sa noon bi gën a garaaw nga la waay xamal ne mooy sa bakkan njëlbeenu noonu doomu aadama moom mooy bakkanam yonent bi sallallahu suñu borom wax na ci aay yu bari mi ngi noonu fa man xaafa maqaama rabbihi wa naha nafsa anil hawa bakkan boobu ak bànneexam ci la seytaan yi di profité ba dugal la fa mu lay dugal loola tax sa noon numéro un mooy sa bakkan moo tax jihaad bi gën a rëy bu doomu aadama yi jihaad ci kaw suuf mooy jihaad du nafs donc te ne bokkul ak xadis boobu ñuy wax naan dañoo jóge ci jihaad Tabuk yeneen bi ne jóge nañ ci jihaad bu ndaw jëm ci jihaad bu mag mooy jihaad nafs loolu moom du xadis waaye nag dëgg la dëgg ba ca nekk mooy ki jihaatulul ak bakkanam ba not ko ba di def ci yàlla tax di bàyyi ci yàlla tax bu demee ci jihaad bële yëpp ngir salak rëy la ko fa yóbbu da koy alal kon nga la waay mbokk del nemmeeku sa bakkan bakkan bëggul lu baax yaay xeex ak moom ba def la ko ko bakkan dafa bëgg lu bon yaay xeex ak moom ba dox digganteem ak loolu rawatina yéen jeunes yi mi ngi noonu xale bu jigéen bu rafet ñëw wuy si la kees gaa ngi nii xaalis bu teew la nga xamee ni ni mooy jëf lu bon wax lu bon loolu dafa nekk ci bànneexu bakkan doomu aadama inna nafsa la ammaaratun bi suu bakkan day déglu lu bon da ngay xeex ak moom ñaareelu noon ba nag doog a ñëw muy seytaan ñetteelu noon ba mooy yéeféer yi ñeenteelu noon ba mooy naafiq yi bal borom xam-xam yi sax duñ koy tegale naafiq yi la ñuy jiital ci yéeféer yi bokk naafiq moo gën a bon yéeféer yéeféer ma nga ne lay xam nga ne ak kéeféer la ñu ngi lay xeex naam Occident de manière générale lu ne ñu ngi koy def pour xeex l'islam waaye nag ñi gën a garaaw mooy ñi nekk suñu biir mi ngi noonu xale bu jigéen bi jóg bëgg a muuru naa fiq bi nekk moom waaye yow doo dox sa ndaw affaire yi ibaadu yi nangam nangam ah nga gis lépp loo xam ne ni wàllu jaamu yàlla la ay nit ñu taxaw di leen ko contre ba ndaw ñi nekk Occident dañ lay wax ne seen problème bi gën a rëy du digganteem ak yéeféer yi mooy seen moromu muudu muudu yi nga xam ne suñ bëggee waxtu wu nekk ñu julli bëgg sellal yenn sellal yi lu ne lañ leen di yàq booy fii kenn du fi nekk di tànn da ngay dem taxañ ba dem réew ma doo ko tànn waaw fii moom boo ñëwee noo gis xaalis nga ko mën a liggéeyee amuñu jot naan dañuy julli par heure ila axiri mbokk loolu mooy li gën a grave looloo tax ba yonent bi sunu borom dañuy wax naan yaa ayyuha alladina amanu ittaqullaha wa kunu maa sadiqin ragal leen yàlla ànd ak ñi dëggu ndax bari nañu demuloon ghazwatu Tabuk ci nga xam ne xarit suratu Tawba moom rek lay waxee ñu bari la leen ko yóbbu mooy xarit yu bon xarit yu ñuy àndal looloo tax yonent bi dañuy naax naan almaru ala diini xalilihi fal yanzur ahadukum man yu xaalil nit ki day nekk ci diine ña muy jaxasool ku nekk ci yenn xool ñan lay àndal ñan lay toogal ñan lay jaxasool kon mbokk mooy ñeenti noonu yooyu bi gën a rëy mooy sa bakkan deuxième bi mooy iblis shaytaan ñetteel bi mooy naafiq yi ñeenteel bi mooy yéeféer yi amma fii ci kaw suuf ah ci biir àddina ci biir safara ba shaytaan mu ne yedd leen seen bakkan waaye ci noonu yooyu ma leen doon wax suñu borom wax nañ ci beneen aaya ne yawma ya'uddu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani ittaxasu maa rasul sabila ya waylata ya laytani lam attaxis fulanan xalila da ngay gis yéeféer bi mooy dugg biir safara day matt ay loxo lan lay réccu ak ne xanoo ba ñoo na topp diw kooku ab sëriñ laam ab oustaz laam ab kum mën a doon te mooy nit la ko mu toppoon mu réeral ko yaa laytani lam attaxis fulanan xalila ak noo xam ne bañ a xam diw ak noo xam ne bañoon a jaxasoog diw laqad adallani ani sabil moo dox sama digganteeg réeral ma ci yoonu yàlla loolee kon mbokk ñu bàyyi ci xel seytaane moo ko seede ne leen nag weddi naa lépp lu ngeen ma doon bokkaale tey moom tooñkat yi mbugal yu tar mi ngi leen di xaar ca tooñ gi gën a rëy ci tooñ yi mbokk mooy tooñ sa borom ci bokkaale ko suñu borom nag bi mu jógee foofu wax ñu waa jahannam naka la ñuy nekkee mbugal yu tar yi leen di jóge fu nekk noonoo gi dox seen diggante kokkali yi leen seytaane di kokkali gannaaw ba nag la fa jógee dem aljanna mu ne waa ajjana moom ñu dugal leen biir aljanna buñ leen dugalee ajjana mooy ñan mooy ñi nga xam ne gëmoon nañ ca doon def lu baax ñoom dañ leen dugal ajjana yoo xam ne ma ngay daw ci suufam dex ya dexi meew ya sangara ya lem ya ndox ya ak yeneen yi dul yooyu suñu borom subhanahu wa taala nee na dañu fay sax ba faw ci seen ndigalu boroom bi izni rabbihim e waay nga la waay julit xamal ne kenn du dugg biir aljanna na jërëjëfe sëñ caam wala jërëjëfe sëñ sow àddina ku fa dugg yàlla ngay sant ndax kenn du fa dugg lu dul ci ndigalu yàlla ay bi izni rabbihim ci ndigalu yàlla borom bi jàll wa ala nag ne nuyoo yañ leen di nuyu foofu mooy salaam ñoom seen biir jàmm rek la ñuy waxante laa yasma'una fiha lahwan wala ta'sima illa qiilan salaaman salaama mbokk àjjana boo fa duggee doo am problème kenn du lu indil problème ñépp ci jàmm la ñu nekk koo dajal jàmm la lay wax salaaman salaaman muy waa ajjana malaaka yi di dugg ci ñoom wal malaaikatu yadxuluna alayhim min kulli baab salaamun alaykum bi ma sabartum malaaka yi dañuy dugg fu nekk mi ngi noonu di leen tagg di leen félicité waaye salaam bi gën a màgg nag mooy salaamun qawlan min rabbir rahim mooy nuyoo mucc bay jóge ci borom bi jalla wa ala mi woowaa aljanna nuyu leen saxal ci ñoom assalaam salaam boobu mooy tax ba feebar jeex na jaaxle jeex na xiif amul rafle amul kenn dootu dee xuloo amul ngaañoo amul doo dégg lu bon doo gis lu bon loo mën a nekk rek salaaman salaama comme na ko suñu borom yàlla di waxee mi ngi noonu Cheikh Ali jazakallahu xayra sunu borom mu ne alam tara kayfa daraba allahu masala mu ndax gisoo nan la dóoree yàlla ay misaal misaalu kalimatan tayiba kaddu goo xam ne gu teey la ka shajaratin tayyiba mu mel ne garab goo xam ne gu teey la asluha saabit la nga xame ñi ni moom mooy gàttam ba dafa doon lu sax wa faruha fi sama amma branche am ya ma nga ca kaw asamaan tu'ti ukulaha kulli xiin ma ngay joxe meññatam ba ci bépp jamono bi izni rabbiha ci ndigulu boroomam wa yadribu llahu al amsala linnas nii la yàllay dóori misaal ñel nit ñi laallahum yatazakkaruun ngir nit ñi doon ñuy fàttaliku wa masalu kalimatin xabiisa bu dee misaalu nag kaddu goo xam ne kaddu gu sobewu la ka shajaratin xabiisa dafa mel ne garab gu sobewu ah xabiisatin tusat min fawqi l ard boo xam ne dañ koo buddi teg ko ca kaw suuf ma laha min qaraar du ko ñeel benn saxuwaay yusabbitu llahu alladina amanu yàlla day mooy dëgëral ñëgam bil qawli saabiti fi lxayaati dunia ci kaddu gu sax ci dundug àdduna wa fi laaxira ak ci alaxira wa yudillu llahu zalimin noonu it la yàlla di réere la tooñkat yi wa yafalu llahu ma yasha noonu it la yàlla di defee lu ko soob mi ngi noonu mbokk suñu boroom nee na dafay joxe misaal ci kaddu gu teey kaddu gu teey mbokk mooy kaddu laa ilaha illa allah mooy kaddu gu set wecc kaddu gu dëggu laa ilaha illa allah kenn yeyewul ñu koy jaamu ku dul yàlla mooy kaddu gi lay dugal ci diine mooy kaddu gi lay saxal ku mujj sa làmmiñ àjjana nga jëm laa ilaha illa allah suñu borom nee na dafa mel ni garab goo xam ne gu tedd la gu teey la ay bran ay dàttam sax ay caram nekk kaw asamaan ay meññatam mu koy joxe waxtu wu nekk ca loolu yonent bi dafa toog ak saxaaba yi bu mujj mën a leen garab yi day am na ci garab boo xam ne moog jullite yem saxaaba yi di xalaat ci garab yi ci àll bi di garab yi ci àll bi te bi mu koy wax ñi ngi toog ci suufu tàndarma yi ñu xalaat xalaat xalaat kenn xamul looy wax yonent bi alayhi salaam ne leen mooy tàndarma gis ngeen bañ jógee ci jataay ba sax Abdullah ibnu Omar booba xale la mu ne papaam moo ne leen man bi yonent bi waxee rek sama xel dafa dem ci tàndarma mu ne ko nag boo ko waxoon day moom a gënal nangam ak i nangam ila axiri te mooy dëgg yàlla dana ko xamal mag di ko xamal xale boo ko tàndarma noonu muy guddee jëmee ci kaw noonu la ay reynam di saxe ci suuf tàndarma moog dund doomu aadama presque dañoo méngoo mi ngi noonu li doomu aadama yi dund rek la ñuy dund ñuy dund ay soixante ans soixante dix ans quatre vingt yu néew di ci dem ba cent ak yu dema noonu gannaaw ba tàndarma dafa doon loo xamee ne nii yàlla dafa def ay njëriñam ci léppam arab yi lépp la ñuy jëriñoo ci tàndarma ay meññatam bi doog a génn dañ koy jëriñoo bu ñoree ñu jëriñoo ko bu wooyee ñu jëriñoo ko ca it ay xobam du rot ala kulli xaal dafa bëri njëriñ moo tax borom bi ne mi ngi joxe ay meññeent kull xiin suñ borom misaal ko ne mooy jullit mbokk jullit it noonu la mel jullit bi comprendre la ilaha illallah day gëm ne dafa ñëw ci kaw suuf pour jaamu yàlla léegi kon dundam yépp jaamu yàlla la mbokk ñu comprendre l'islam ñoom ñoo jàpp ni diina mooy julli tisbaar ak takkusaan ila axiri koor jot nga woor aj makk ila axiri déedéet mbokk jullit jullit bi comprendre l'islam day jàpp ne islam benn doxalin la mooy benn nu ñuy aw dundin la wu ñu war a dund mu lay topp vingt quatre heures ak foo mën a nekk looloo tax boo xoolee tey mbokk lekk yéeféer ak lekk jullit ndax benn lañu déedéet jullit moom ak lekkam c'est normal parce que lekk c'est normal waaye jullit lekkam jaamu yàlla la jullit buy lekk day wax bismillah loolu du jaamu yàlla nday joram lay jëfandikoo loolu du jaamu yàlla bu lekkee ba pare day sant loolu du jaamu yàlla du lekk lu dul lu yàlla daganal loolu du jaamu yàlla kon loolu lépp da ngay gis ne lekkam yépp jaamu yàlla la mu safaanoog yéefir bi nga xam ne suñu borom mën a yaakuluuna kama taakulul anaam yéefir moom nag xaj ak mbaam li ñuy lekk rek la ñuy lekk day ñëw dóor li muy dóor dem yoonam am naa jullit moom day gis lekkam jaamu yàlla la mbokk yeneen ci bàyyi sam ne ne julit sëyam sax jaamu yàlla la nit ki booy ànd ak sa soxna sax nga wax bismillah xoolal li gën a naturel muy dem douche yéefar buy dem douche ooy le problème day dugg ci douche bi def li muy def gën dem yoonam mais islam danaan la booy dem douche waxal bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith gannaaw ba boo nekkee ci douche ba nga noppi boo génnee nga wax ghufranaka loolu mi ngi noonu dem douche bi nekk jaamu yàlla jullit buy dem di nelaw ak yéefar buy nelaw yi yéefar day dem fëgg lalam rek ak ci hop départ mais jullit yeneen ci bi alayhi salaam da koo jàngal ay azkar boo toogee defal lii bokk na ci azkar yooyu bi nga sëlmalee julli li ngay wax subhanallah alhamdulilah allahu akbar mu ne booy tëdd wax ko allahu akbar bi nga def ko 34 muy cent zikr gannaaw ba ngay jàng xul wala waxaat falaq naas ñetti yoon raay sa kanam jàng ay tur kursi boo ko mënee booy tëdd nga ñaan ñaan boobu nga xam ne nii mi ngi noonu la ci gën a gàtt bismika allahumma amutu wa ahya mi ngi noonu am na yeneen yu ko gën a gudd almuhim mbokk dañuy gis ne julit léppam rek day xool fa mu cee amee ngërëmal yàlla su demee ca marché ba yemul ak yéeféer bi su nekk ca palais de justice di atte yemul ak yéeféer bi léppi julit yemul ak yéeféer bi kon fu nekk ma nga fay faggu ay tuyaaba fu nekk rek mu ngi fay faggu ay tuyaaba rasul sallallahu alayhi wasallam ne ki dugg ca marché ba daa ji ne laa ilaha illa allah waxdahu la sharika lah lahu almulku wa lahu alhamdu yuxyi wa yumit wa huwa alxayu lazi la yamut bi yadihi alxayr wa huwa ala kulli shayin qadir mu ne dañ ko bindal un million de tuyaaba loolu yonente bi alei salatu sax un million de tuyaaba léegi nag tuyaaba yooyu yépp ngay dajale yaa ngi koy góob yowm alqiyaama yaa ngi koy góob yowm alqiyaama loolu nag yàlla subhanahu wa taala kenn xamul fan la lay yërëmee yeneen bàyyi la jox ñu ci ay misaal benn waaye ngi day dox ci yoon bi ba mu ngi gis benn branche bu kale yoon bi ah branche bi de mën na lor jur bi fii jaar mu dagg ko sànni dox tuuti dee branche boobu te la ko yàlla yëre ma tàbbal ko àjjana benn waaye ngi nii demoon na di tukki mar gis benn sayaan mu wàcc ci naan génn gis benn xaj buy appaat mu ne ah ki jëli ma daloon moo ko dal wàccaat tànk ndox may ko mu naan yàggul tuuti mu dee yàlla baal ko loolu kon mbokk muy wane ne jaamu yàlla dune julli koor ak makk ila axiri waaye jaamu yàlla mooy sa dund gépp nga dëppale ko ak li neex sa borom tuuti ukulaha kulli xiinu bi zarabiha borom bi nag mu ne mi ngi dóoral nit ñi misaal mi ngi noonu ndax doomu aadama yi doon ñoo xam ne nii dañuy doon ñoo xam ne ñuy fàttaliku lañu loolu borom bi wax ne asluha sabit mooy imaan ba ngëm jullit ngëm dafa sax ci xolam ay jëfam sell looloo tax lum jëf yàlla nangu ko bu safaanoo ak yéeféer bi nga xam ne moom amul ngëm li muy jëf yépp intérêt àdduna ngir sa la tax looloo tax dara yàlla du ko ci nangu gis ngeen dara yàlla du ko ci nangu ndax amul asl amul faru du dem du tax yàlla du ko nangu borom boobu nag subhanahu wa taala mu ne bu dee ne nag misaalu kaddu gu bon ca mbokk kaddu gi gën a bon ci kaw suuf mooy kaddu shirk kaddu bokkaale waloo gën a bon lépp mi ngi noonu waa ji taxaw fii di dagg saagay ndey ak a bon li muy wax waaye ki naan sëñ diw yàlla ngaa kookoo ko gën a bon la mu wax téeméer yoon ki ne yàlla am na doom kookoo ko gën a bon wax téeméer yoon loo xam ne suñu borom nee na takaadu samawaatu yatafattarna minhu wa tanshiqul ardu wa taxirul jibalu hadda loolu kon kaddu gu bon muy kaddu shirk suñu borom nee na mi ngi mel ni garab gu bon garab ga gën a bon ci garab yi xaw ban garab la suñu borom nee na ba pare ñu buddi ko garab gi amul benn njëriñ ba pare ñu buddi ko teg nee na kooku da ngay gis ne du am benn saxuwaay ay du am benn njëriñ suñu borom yàlla nag ne dana dëgëral ñi nga xam ne dañoo gëm ci kaddu gu sax ci adduna ak allaxira mboo ko kaddu gu sax googu may kaddu tawxid dulit bi ci àdduna yàlla may ko al iman yàlla koy may amnu jàngoon nañ ci dars yi passé allazina amanu wa tatmainu qulubuhum bi zikrillah ñi nga xam ne gëm nañ ci seen xol di dale bi zikrillah loolu tax ba julit lu ko dal ci yàlla la koy delloo du saalit ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu xayr yéeme na mbiri julit léppam rek yiw la ndax lépp da koy delloo ci yàlla sukkandiku ci yàlla suñu borom mu ne da koy dëgëral ci àdduna gannaaw ba àdduna boobu it bokk na ca mbokk jullit la nga xam ne damay bu duggee biir bàmmeel bu duggee biir bàmmeel rasul sallallahu alayhi wasallam nee na ku dugg bàmmeel yàlla dana la yónnee ay malaaka ñaari malaaka ñëw na ci sunna ñu ne kenn kaa ngi tudd nakiir kenn ka tudd munkar ñuy indi melokaan bu jiggi dayoo ci ñàngaay dañ la poser ay question kan moo nekkoon sa boroom ci ban diine nga nekkoon loo doon wax ci yonent yàlla muhammad su boobaa jullit bi du leen ragal yàlla day dalal xelam mu ne leen hi man yàlla laa doon jaamu bokkaale wu ma ko dara maa ngi nekkoon ci diine lislaam ki ngeen di wax yonent yàlla muhammad mooy yonent yàlla bi yàlla yónni woon ci ñun bi loolu amee suñu borom ne malaaka yi sadaqa abdi sama jaam bi wax ne dëgg loolu lan moo ko waral mooy yàlla ko dëgëral ndax loolu mu wax loolu lu dundoon loolu lu dundoon looloo tax ñaari mbir ñu war koo bàyyi xel mooy jéem a dund ñetti kàddu yooyu nga xam ne yonent bi alei salaam daana wax ne ki xëy suba ne raditu billahi rabba wa bil islami diina wa bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam nabiyan wa rasula ku mel nii fokk yàlla dana ko teral dëgëral ko yaa ngi dégg loolu moo tax ñett yi dañ koy dund wéetal yàlla bañ ko bokkaat ak dara dund lislaam ci léppam ci lislaam boobu yonent bi nekk ci saroyukaay lislaam boobu yonent bi nekk saroyukaay ku mel ni bu duggee bàmmeel yàlla moo koy saxal yàlla koy dëgëral amma waa ji nga xam ne naafiq la woon waa ji nga xam ne dundul woon diine waa ji deful woon yonent yàlla royukaayam ila axiri ku mel nii mën na jàng ba xam lépp mais bu ko malaaka yi posé kuy sa boroom yonent bi alayhi salaam daf naan nee na danaan hë ca mooy am na lu mu bëgg a wax mais yàlla réeral ko yu dalillahu zalimin da ngay xool rek xale yi def examen léegi la prof mën nañoo poser la benn question question bi xam nga ko mais mu réer complètement comme ni ngay gisee nit rek nit nit nga xool ko xam xam ko mais tur bi réer la complètement loolu day am kon boo ko def naan hë question bu ñu ko posé mu ne hë mi ngi noonu am na mbugal yu tar yu ko cay xaar waaye daal almuhim mbokk nañu xam ne suñu bëggee yàlla subhanahu wa taala saxal ñu ci àdduna problème yoo am yàlla dëgëral la soo duggee biir bàmmeel yàlla dëgëral la soo demee yowmal qiyaama yàlla dëgëral la yoon bi du lenn lu dul mooy nga sax ci kalimat tayyi kalimatun tayyiba ca mooy ëmb kàddug la ilaha illallah muhammad rasulullah nga wéetal yàlla dund lislaam doyloo yonente bi muy royukaay yal na yàlla saxal ñu àdduna yal na yàlla saxal ñu suñu bàmmeel yal na yàlla saxal ñu ko rek ba ñuy dajeeg moom defal ñu jannatul firdaws suñu wàccuwaay wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain dañuy nodd day fekk muy jàpp ala kulli xaal nodd moom boo ko déggee zikr la zikir la boo xamee ne nii yonent bi sallallahu alayhi wasallam da doon wax ku dégg aju noddu na wax li muy wax gannaaw ba mu ñaan donc même bu dee ne moom jàpp na ne beneen jàkka lay julli ji waaye fa mu toog ak noddu dikkal na ko fa loolee mën na ànd ak noddukat ba ñaan ay ñaanam gannaaw ba mu doog a dem ca jàkka ba mu jàpp ne fa lay jullee mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam ndax même jigéen ñi nga xam ne ñoom dem julli ji waru leen ñu nekk seen biir kër suñu déggee aju nodd dañoo war a ànd ak moom ca nodd googee daal di ñaan ngir dëppoo ngëneel ya yonent bi alei salatu wasalaam wax ci loolu mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam waaleykum salaam wa rahmatullah waaw waaw mu ne mooy.
mu ne ko gàttal na moo amul dafa amul daal lu mu gis jëfandikoo mu ko jëfandikoo muy daal laaj ndax léegi bu ci bi nga xam ne dafa gàttal nit ñi ci jëfandikoo.
naam waa ji nga xam ne da nga koo xëccal robinet ndax day dugg ci tuyaabay ñi gasteen kay jàpp naa ne kooku sax moo ëpp tuyaabay ki gasteen ndax ki gasteen moom il faut nga soxla ay baag ak ay buum ak yooyu. waaye ki ngi indil robinet ci robinet robinet boobee ñu cay root sans coono loolu yi ci tuyaaba yi gën a rëy la bokk wala moom ñoo xam ne bokk na ci tuyaaba yi gën a rëy mooy tey ji patron yi yor seen alal bu dul jeex tëdd fii nara dee rek bokk fi ñu demoon ci àll ba gas ay forage xëcc ci ay robinet tasaare ko ci nit ñi mën a am ndox tuyaaba mënta paase loolu mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam wa salaam man li may laaj mooy comme ñi jàpp laaj ci sàpp ñooy dañ koo yéeyoo wala sinon est-ce que soo ñëwee ci jàkka ji mën ngaa jàpp place dem ci kuur gi wala nga dem ci dara
jàkka kenn du ci jàpp place jàkka ñépp ñoo ci bokk yem soo ñëwee da ngay ñëw nga toog nit nag mën ngaa ñëw jiitu ci jàkka ji toog ba mujj nga am ngant ngant bu la taxa jóg dem nga am loo fa bàyyi pour boo ñëwaatee toog sa place amma nag jiitu jàpp say place daal di dem doxi say soxla ba xam ne julli gi jot na nga doog a ñëw loolee moom mbokk lislaam xamut loolu jàkka ji ñépp ci bokk yem kenn amul droit di ci tënk place pour kenn ku mën a doon mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam naam li may laajte ci kaw bi dafa am benn phénomène bu fa am ci wàllu teccum jiw da ngay ñëw maanaam ñu sàcc sa jiw ñu ne la boo demoon gis jiw waxtaan ak moom jombul moom mun na la ci jàppale boo demee dara naan yow bul wërale jox ma nangam waaye yow bul wërale léegi ñoom ñoom ci ci muy dem dana ñu kooku dañ ko tuddee moom dayu sàcc danañ fexe ba toujours fay nga fay ma doon laaj ndax yow mii dem di leen fay loolu pour toujours fay ndax loolu la gën waa ji nga xam ne dañoo sàcc juróom am na nag koo xam ne moom jàpp nañ ne sàcc sa fa nekk sépp xam na leen soo ko neexalee mën na fexe ba delloo si la sa jur loolu day mbokk loolu dara newu ci la ngay neex la pour ñu delloo la sa ak jur dara loolu moom dara nekku ci lii problème bi kay moo di ne ne bu doon dangay dem mu lay defal ak ñaan ndax am na ñoo xam ne ñoom dañ naan la demal toog jur gi ki ko sàcc dana ko indiwaat su dee loolu moom islam du nangu loolu mi ngi noonu même bu dee lam def baax na yoon ba mu jaar is- islam du ko nangu abadan nga dem ñuy njabar sàcc bi sàcc bi wëlbati ko ba indiwaat jur gi amaa nag bu dee ne yow amoo pexe sàcc nañ sa jur moom ci boppam xam ne ne moom ñay ndey sàcc yi mën naa dem waxtaan ak ñoom ba ñu indi ko loole yow da ngay gis ne yow sa jubluwaay mooy fexe ba jotaat sa jur rek waaye amul benn bàkkaar bu la cay bu la cay nekkal ña nga xam ne nag ñooy sàcc soo sey di sàcc ak ndey sàcc ba nga xam ne moom loolu intérêt da da ko ca am te mën leen koo tere bàkkaar bay topp moom ñoom lay topp mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam waaleykum salaam ndax ah ki nga xam ne dafa lor ndax mën naa ju julli fa am ay nataal ah bu dee lor kay lor moom lor la waa ji nekk nga ci foo xam ne nii amoo fenn fooy jullee lu dul foo xam ne ay photo yëpp dafa nekk su boobaa dañ naan de ju- julli gi moom doo ko faat waaye daal tànk yaa ngi mën a am feneen foo jullee dañ naan la demal feneen loolu mooy la nga xam ne mooy la gën ci yow mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam waa xam naa ñu mujj ci mbokk bi rek waa bismillah naam waaw man fan ñu jaay kii ci airport bi ne moom bu kii place am am na ñu bëri ñu fay ñëw di jënd mbir mu ne ndax moom responsable la ci le fait ñu ñëw di
damay mu ne dafay jaay ndékki mu ne ndékki boobu nag am na ñu bëri ñu fay ñëw di jënd ay ndékki mu ne ndax moom dana ci dekk responsable wala kulli xaal loolu moom mu ne su ko koo araamal mu ne su ko koo araamal lu waral loolu mooy nit ñi du ñëpp a war a woor am na ñoo xam ne dañuy feebar woor waru leen am na ay tukkikat yu fi nekk woor waru leen jigéen ñi gis baax woor waru leen ak fi dema noonu lii problème bi kay mooy ña fay ñëw di jënd si ña fay ñëw di jënd si foofu loolu moom mooy problème bi waaye daal moom ci boppam bu dee ne day jaay lekk rek loolee moom kenn mënu ko koo tere lu waral loolu mooy koor gi warul ñëpp mi ngi noonu mbokk julit waaw xam naa mbokk bi day wax naan ñu laye ko ci laylatul qadr laylatul qadr moom ay xutba la laaj liñ ci mën a wax rek daal mooy ñi ngi ci fukki guddi yiñ koy séentoo fukki guddi yi ca guddik tey gi lay commencé fukki guddi yi daal lañ gën a yaakaar laylatul qadr rawatina ci guddi yu tool yi comme suñu guddik tey gi 21 23 25 ila axiri doomu aadama bi lim ci war a mën a def taxaw naa fi la ak ñaan jeex na taxaw naa fi la ak ñaan yeneen ci wàllu soxna ne ni ki taxaw naa fi la laylatul qadr daañ ko baal ay bakkaaram laylatul qadr it yàlla da ci nangu ay ñaan ñu ngi ci profité waale di fàttali ne tey jii à partir de une heure du matin daañ fi dajawaat ngir jéem a taxawal ay tahajjud loolu lépp ngir it sàkku ci dundal weeru koor waaye sàkku ci dëppoog laylatul qadr mbokk mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain